écoute sur RFM. 9h37 Radio Futur Média waxtu xalaas jot ci RFM mbokk yi ñu dellu len nuyu bu baaxa baax len sant gërëm len di len ñaanal jamm boole ceeg di bu baax di ak programme yu Radio Futur Média mais également ni ngeen tamo seen émission bi di xalaas jaajeufal Abdoulaye Diop mi dend ak ñoo ci technique bi euh, xalaas ma ci ànd ak sama Malal Junior Diagne Diagne ma ngi len nuyu bu baax. mangi lay fay Mamadou mohammed Ndiaye di la ziar keur daa war ah keur day mer gàddu <laughs> ay bureau kese tok tundum rek tok wiru rek tok wiru da ngay def ay mer gàddu ci bureau yi léeg ñu mën di ndess fofu ah, xam nga euh, turu mer gàddu ci bureau dañ ko yak yak ba boo ko xel dafa am fu muy dem man ba nga né mer gàddu day am mer sama xel mi sori won na ay ah kon da nga say say mom legui nak heureusement ba nga leral leen ne pour non pour nelaw noppalu. ah ah wax day yegg jagn xam nga du yéen dang dang guddi nga dang dang xey fajar di amoo foo ndës da ngay tok ni ci ci table yi di wéeroo ko mbeuk mir yi lo tam maltraitance la tam jagn jagn hein jagn bu la yalla bolé won ci alkati yi sol tenue taxaw ci tali bi nag. ah ma xam ne mooy sama liggéey mais sama liggéey du alkati sama liggéey tok ci bureau bi la suma sonné mot fu mo ndës noppalu nelaw ci tu jogat bind sama liggéey bi wax dong la metti wul ah yi akhalat

nuruni daw waaw c'est vrai que vida changer nak? Ya, nag waaw yëf yi dafa da ngay ko bu ñëk boo daan dem reportage jox la nagara xam nga nagara <laughs> non nagara nak fekkee wako ko jaaj si sama papa amana nagara keur sa papa mais pas yow waaw mais mu daan ci la jangé ci la jangé enregistrement bu ñëk nagara gaddu gàddu ko nii def 5 kilo 500 le abdou milieu le ki dictaphone motax gis nga RTS waaw warna indemniser pas yu bari barki rasoulallah paa yu baree baree baree bari yu daan liggéey RTS daan dem reportage surtout ci rajo bi. billaay ak caméraman yi. war nañ leen a wër benn benn gis nga ni ñuy neexalee tirailleurs yi di leen indemniser takkal médaille. billaay RTS war naa xool listu anciens ñu fa doon liggéey. mu def décorer leen. mais Diagne dama daan gis caméra yi caméraman yi. dañ daan pant. waaw ndax ndax dafa diis. bi ñuy gàddu la. <laughs> Ah, waaw nga gis paa yi daan dem reportage nagara yi ñuy yor. billaay wallaay. gàddu ko gàddu léegi bu ñu demee ba yow da mën nga enregistrer nit ki te du xam sax ne yaa ngi koy enregistrer moo tax RTS war naa woote journée de récompense et de ak lan. nu ñu ko tuddee baax na mais. Oh, nañu reconnaissance de journée deux heures. récompense ak reconnaissance nañu dàmp paa yi de. waaw ah, jël nagraay jox ko booy ñu dàmp seen njaboot. jël nagraay jox ko booy yi ne fii yóbbu leen ca ba fële ca mbaam Mbambam bi reportage. ñu ñëwaat ñu xam yëpp dëgg la Diagne waaw ñu ñëw ci partenaires yi ay ca bisimilah ay ca dañuy wéy di leen gërëm bu baax a baax ñoom partenaire yi ñuy àndal ci xalaas wax ne sama waaj ji Ababacar euh, ay yitte ko tëye tey daa daw liggéey euh, rek mais suba insha allah dinañu ànd ak bu dawee liggéey rek nga koy sàng sutura bi ay yitte la demee daw liggéey fii ngay toggee ñaar di ma kaa xam nga du lépp lañ mën a wax ci rajo mais xam naa daal ay yitte ci la nekk maa koy nuyu bu baax a baax am solo Diagne dañuy Optic Optique Vision Plus Sénégal borom lunette partout et pour tous ci partenaires vision de près wala vision de loin mm. ay euh, progressif euh, avec anti reflet ay original ak traitement X blue ay verre photogray avec euh, anti reflet ay genre de la yo ji bo ci bu Vision Plus Sénégal yi ci Dakar Saint-Louis muy Louga muy mm. dem boutique optique vision plus Sénégal mi ngi ci également Mangatok, nga tok fi nga 33 821 54 57 batay ñom optique vision plus Sénégal man ngeen également ci 77 479. 63 38 lo soxla ci ay leral dañ ko di ko ci mën am bo fa demalee sa bop nak euh, sa xol dina gën a sedd ndax euh, liñu yor ci ay lunettes yu baax te loolu waa Sénégal moo ko arrivage bu bess dañu andi ci été bi ñom wa Optique Vision Plus Sénégal ñu gëreum également partenaire bu am solo bi ci réew mi gamme bi di Universel Pouce Universel Pouce nga xamné d'un dañ ko andi spécialement pour muy dimbale ñi nga xamanteni dañu am envie euh, bëgg seen karaw sëq mhm. muy goor di jigéen bëgg karaw également buy sëq di dund ni mu waré ñukoy pour ni mu waré motax universel Universal Pousse indi gaam gambia mu ci amna huile de barbe pour ñi euh, am stylo di yar sikim sikkim euh, fay bax mu baña a da fay bax euh, karaw bi du dund mm. lolu Universal Pousse mo ci efficace la def disponible partout ci réew mi na ci boutique ay produits cosmétiques numéro de téléphone bi di 70 336 05 53 70 336 05 53 Diagne partenaires yi la ñu à ci xalaas ñu leen jaajëfal bu baax a baax di ñaanal jàmm la seen de yàgg

ay or waaw ah dénk ko yaayam mm-hmm. taawum bu jigéen di sàcc or yi jaay taawu jigéen ji taawum bu jigéen moom mii di wax taawum bu jigéen moom moo ko doon mooy roc roc or yi di marché bu fal di ko jaay ok ba noppi nag yi fi teere ci yoon mm-hmm. ndax dafa am appartement boo xamante ni doom ji da koo xoon ne ko da koo bëgg a maire bi nee na mu jox ko xaalis mm-hmm. pour mu luye ko nee na ba fa demee dèjà li ko njëkk a bett mooy lim ko jox ak lim luy du benn parce que appartement bi xat na xat goo xam ne ñaareel ba mooy moom dafa yoroon caabi. Mhm. dem ubbi mais doom bi mu ñëwee daf ko yóbbu ci yoon parce que nee na yaay ji dafa dajj néegam. doom ji moo potpent yaayam. waaw. bi kër. jaaj muy affaire bu doy waar. doy na waar déglu. damaa jaaxle sama taaw bu jigéen moo sàcc sama ay oo damaa tukki def naa Amérique vingt quatre di daan sama doole yor leen kenn fekkuma ci ñoom. ba ñuy gone ba léegi sama njaboot gépp moom fayal naa ko jàng fu ne fayal naa ko Saint-Michel fayal naa ko Maroc fayal naa ko BM ba mu am ñaari master degré sama alal ji nga xam ne nag moom laa jëloon dénk ko sama yaay muy valeur or boo xam ne egg na ci ñaari kilo ak genn wàll biñ ko xaymaa egg na ci cent trente cinq million CFA bi ma ñëwee ma dem këram ndax këram googu kat man maa ko fayal caution ñetti weer di fay par weer tapi ba tapi ba ci biir kër ga sax maa ko jënd tele ba lu fa am maa ko jënd pour ma am fu may dal bis bu ma jógee Amérique ñëw Sénégal man ak sama doom ak sama doom jabaram mu dem wutal la ko ci pokkus bu tuuti dëkk fa lekk sama xaalis teg ba noppi mu jiiñ ma ne dama ubbi këram dajji ko te man li ma jaaxal yow noo mën a dajjee kër goo xam ne da nga romb gardien premier étage deuxième troisième ba quatrième xam nga ne lolu nekul lu jaadu mu wëlbati ko waat ma plainte da di may sosol, te kër ga kat moko dajjil bopam mu bolé ci ay nit top ma di ma menacé mu and ak ko xam ne maag ma bokk nday ak bay ñu may xeex teg même rak jojé ma bokk nday ak bay sama teranga dem na ci mom te teranga mom mu musta ñew ci man légui nak maa ngi ciy woo ñu mi ngi may bolé nak ak ay wëyu ñu ngi may wo ñi naan policier lañu ñi naan du ñu policier ñoom lu ñu bëgg mooy faagaagal ma ndax nee na man xaw ma dara ci dëkk bi te nee na kat moom am na bras boo xam ne moom ay kilifa ñoo koy jàppale pour bëgg ma faagaagal léegi nag maa ngi ciy woo son excellence Bassirou Diomaye jaxaar fay maa ngi lay woo kat ci problème bi ndax yow kat ni ma la gisee sopp naa ndax nitu dëgg nga te ku la gis xam ne fonk nga sa ndey kii nag man maa ko jur ci sama biir kenn juralu ma ko ma sonn ci moom maa ngi ci woo àdduna àddina bi atte maak moom. sama yaay laa dénkoon sama ay bijoux mu jël ko ci sama armoire yaay dem di ci noos di dem Dubaay di dem fu nekk maa ngi audio boo xam ne sama yaay bi ma ñëwee moo ma wax ne ma ki daan jël jëlati na muy sama doom preuve mu mel ni midi laa jàpp man kilifa laa de du waxantu ñaareel ba mooy of course yóbbu naa ko ci yoon ba ñu jàpp ko quatre jours ba fi mu nekk nii mi ngi euh, nekk euh, ni ko waxeeti naka judiciaire whatever waaw mu ngoog liberté provisoire provisoire lañ ko jox parce que dafa crise waa te bàyyi boobu ñu ko bàyyi sax war ñu koo bàyyi parce que man sama or rek laa soxla samay bijou laa soxla parce que yaay ni ma laaj ndax keneen moo doon wax déedéet même femme bi la. Mhm. mais dafa am foog lu ko passe relancer mooy euh, ndax da nga am preuve ci ne moo ko jël. moo ko jël wala ndax njort la mu ne ko noo du njort sama yaay laa dénkoon samay bijoux mu jël ko euh, waxoon na sax turu turu doom ji. Hmm? waxoon na turu doom ji te famille bu mag la de. Ah. une famille bu mag boo xamante ne ji. famille Madre Pis. loolu déet mais boo tuddoon tur bi sax dafa ci këru diine bu muy dem. ah xamante ne ji euh, fa la ñu bokk. fa la ñu bokk waaw comme aussi amuñu version doom ji. Mhm. moo tax ñu dindi ko moom nag nee na li muy bañ mooy ñu sànk ko ndax au delà de li ko doom ji porté plante mhm. ñu koy woo. di ko menacer ba ci doom yi boppam sax fan bi déggante na ak moom. Hmm, doomu jigéen bi. Oh, non non maire bi wax nii. waaw maire bi wax nii. déggante na ak bu jigéen. man déggante naa ak. ay ah, déggante ak maire bi yow. parce que Mamadou Ndoye Bane moo ñu boole. mbaan Bane la maire. waaw ah taar foofu la jaar taal na lamp pire yëpp. <laughs> xanaa moom. dem si guddi fa laa jaar booy gi booy dugg pire jógee ndar ba bi ngay génne dugg dugg Tivaouane day leer nañ. gisoo non dugguma biir piir eh. ci ma ci mbedd bi laa jël rek tal na mbedd yëpp yow boo doon boo doon na ma koy toppe boo ko doon toppe waaw chaque jour ndoy baan am lu mu inauguré foog naa ni maire yi ci dëkkee route nationale bi yëpp ah. noonu la ñu war a def te itam waa Ageroute mhm. nanu jàpp si yàlla li laay war a suuli nu dem peinture rouge blanc doodaan yi nekk diggante dakaar ak Saint-Louis am na yu si am signalisation am na yoo xam ne amul signalisation soo amul lumière yi baax da ngay daw bana ci réll xaaju guddi lu ne mun ne su judd mhm. accident wala ñu agressé la wala leneen nanu jàpp càll jënd ay soo peinture nga ne bañ diggante la ndar ba ndakaaru ndar ba ndakaaru mhm. na ci booy dugg ci les grandes villes am na ay doodaan yoo xam ne dañ ci teg ay ay bidon ci digg tali dañuy def suuf samp ci samp ci bant tekk ci digg tali bi ngay daw ba ni ci réel boo amul ay lumière alors que bu ñu ci signalisation bu war <coughs> peinture ko rouge blanc def tableau signalisation ni wane ni fii am dina wagné accident ndax bo jëlee yoon bi nek diggante Bambilor bee Gànjool mhm. foofu dañoo def ay réflecteur ci tali bi soo taalee projecteur ce sa faar yi dem mhm. ay lumière yo xam moy mooy démultiplier ce lumière auto pour nga gis tali bi gis virage yi am panneau de signalisation mhm. route nationale bi nañu ko def noonu Hmm. parce que man dama demone ndar démb guddi la ñew waye bu amutuna ay lumière yu bax auto ba toj na. ëpp na wax ndax ah ndax da ngay daw ba gis ba da ngay daw ba yam ci doodaal. Hmm. bu fekke amo ay lumière yu bax da ngay daw ba yam ci mais bu amé lumière bax di nga ko seen nga teg ci tank mais bu amutul lumière yu bax da ngay daw ba ci reel ah loolu de musibe la waaw nañ ci taxaw. xam nga bo toogee fi di wax nduy baat mu liggéey pir waaw ma teg ci sama bëtt waaw te dëkk ngaabu. waaw gis la fa mer bu mu dem ba def. waaw te waxuma ko. waaw da ngay da ngay sik ma nga nona waaw waaw waaye foofeet euh, politique ma nak waaye liggéey na ko nag. waaw ah, waaw mooy dëgg. mu dem ba maire bu ngaabu. waaw man li ma gis. waaw te xam na ne ba mu faloo léegi beneen laa ko mos a gis. tabarkaal ma ngay liggéey. ma ngay liggéey Diagne. na xale mbedd yi defar tali yi tàllamp yi. am na fa Diagne. waaw ah, na yaatu rek. na yaatu rek mbay. na yaatu tali yaatu. te xam nga ay ngaabu yi dëkk la yoo xam ni màggagul ni mu a màgge. mi ngi noonu laataa màgg nag ba lay dal Ndakaaru di leen dal. nanu xàll yi def ko ay mbedd 30 mètres. teel dañu imité sëñ Tuubaa ak sëñ Fàllu teel a waajal def ay mbedd di trente mètres. <laughs> trente waaw def ay deux fois quatre voies. tàllamp nga xam ne lu dëkk bi màgg màgg màgg xaaral nga ba noppi. ba nga noonu a jaay mooy dëgg. Eh, bala loolu laa waroon ubbee sax. waaw suñu mag. kana ah? Lamine Samba. lu mu def. yaayam dafa génn àdduna. ah loolu yëguma ko. voilà keroog samedi la woon rob bi. samedi ji weesu. ji ñu weesu jaañ. barki dem waaw maa nga woon ndar. moom xam naa ma dama dama génnoon Ndakaaru. waaw moo tax. di ko masawu di ko jaale bu baax waay di ko di ko jaale loolu moom dinaa ko woo téléphone léegi jaañ man sama diggante ak Lamine Samba su ma toogoon ci rajo di ko wax waaw yaakaar naa RFM ñuy fi la ñuy fekk ah Lamine lu na ko ndax euh, ba may jàpp ci loxo di ma yóbbu oxygène mm-hmm. boole ko encadrement bi conseil yeeg taxaw yi ndeysaan donc euh, ba yàlla def ñu dajawaat tey fii mm-hmm. muy mag ju baax joo xamante ne ji cër boobu la mës a doxal donc su yaayam génne àdduna damay jàpp ne dëj bi ñoo ko bokk. ñoo ko bokk wallaay wallaay wallaay loolu moom su ma génnee fii dinaa ko woo léegi loolu yëgu ko woon di ko masawu loolu yëgu ko woon benn yoon ku baax la ceeb rek ko yàq mais ku baax la. keneen a ngi koo xam ne moom it Diagne. li ko dal moom du lu baax. ah ah ah, ah. la boo xam ne daal. waaw. déglu ko. dama toog benn jour ben lundi ben société oma je suis à l'extérieur ben société oma ne voilà comme cliente Amazon là que les may jënd Amazon dafa bari ñu wax ma Amazon daf ma may en fait un bonus bu 250 euros mais 250 euros yi du 250 euros yo xamné dama koy mëna jënd ci Amazon ou bien du xaalis boy retirer liquidité mais danga koy dugal ci marché yi ci marché genre cryptomanie quoi loolu la donc bi ma ko defee bi ñu ne ma léegi mais pour euh, compte bi mën a demaré man foog ma def benn euh, virement dépôt def benn dépôt bu cent quatre-vingts euros pour que ma mën ko mooy nekk sama garantie fond mais xaalis boobu du xaalis boo xam ne ñoom dañ koy utiliser de toute façon cent quatre-vingts euros heure bu ma ko bëggee retirer dama koy retirer mais xaalis bi ma Amazon may bonus bi moom la ñuy utiliser pour que voilà di ma euh, fructifier ma xaalis bi quoi amoon naa ci expérience en 2021. donc ma ne ça me coûte rien de toute façon am naa ci bonus 250 euros donc euh, coûté wu ma dara te aussi euh, société bi j'ai pas pris le temps aussi moi de vérifier mais dama leen gëm sur parole parce que à mon âge expérience et tout voilà les man ma dem ci ñu commencé ibil ma compte utal ma consultant sama consultant au compte mon tout jour daf ma dañ daan déggante WhatsApp su ma ko soxlaa damay bind mu envoyé ma message yenn saa yi mu ooma ñu joxante rendez-vous tel heure pour me libre ñu mën a wax mu jox ma compte rendu journée bi ak position yi mu ibbi ak lépp ci sama compte bi alors euh, position yi maanaam di jënd di jaay di jënd di jaay euh, position yi genre ci or pétrole ay xaalis tout tout tout tout xam nan laa ko mën a expliquer quoi Amazon ci yenn société yi nga xam ne dañuy def euh, yooyu alors ben, ko fait, euh, quelques jours après j'avais mis 180 euros dans les ma Amazon Mayon. donc moi, me suis dit que de jour en jour parfois tu peux avoir 20 euros parfois tu peux avoir aussi 30 ou même plus 100 euros donc je suis lii peut-être dara la naa ko fa téye léegi bi fait jour mu ne ma naa télécharge application bu parce que je ma suis wax ay je ne du téléphone mu ne ma naa dugg ci Eni télécharge benn application bu tudd Enidex bi ma ko téléchargé su ma duggee ci application bi dama koy jox ay numéro yoo xam ne maa ngi koy gis ma ko joxee day am accès directement si sama téléphone du coup mën naa téye téléphone bi comme si man man maa koy manipuler alors que moom moo koy manipuler de de fi mu nekk euh, bi mu ko defee mu dugg ci sama compte gis sama xaalis nan la toll xam nga léegi bi mu ko defee benn jour mu ne ma pour finaliser suñu procédure yi ñuy def nii nga xam ne toute façon heure bu ma soxlaa sama xaalis su ma ko bindee dina ma ko mën a envoyé nekkul ne xaalis bi dama koy jot directement ci sama compte mais benn compte boo xam ne dama koy gis lépp laay gis mais su ma soxlaa dañ may envoyé léegi bi ma ko defee mu ne ma pour finaliser il faut que ma déclarer li ma am

c'est sûr bul inquiété wu toute façon compte bi nii yëg nii xam nga léegi man ne ko waaw man toute façon musuma musuma dal donc dama ne noonu yi duñ ma arnaqué du mu ñu essayé ñoom si seen bopp def euh, virement bi affaire yi demul virement 3000 euros ñu bloqué sama compte yi bloqué samay application bancaire bloqué lépp lépp lépp léegi ma toog quelques jour sama banque ne ma foog ñu envoyé la beneen carte boobu bëggee ou bien nga dem ci banque bi jël benn mais du ànd ak sa IBAN maanaam mooy sa numéro carte bancaire bi nga xam ne mën nañ la ci viré xaalis man ne leen non loolu soxlaaw ma ko man damay soxla boo xam ne sama carte bi bugguma ko changé quoi bugguma changé numéro yooyu ñu ne ma kon da ngay xaar 10 jours. donc j'ai attendu les 10 jours 10 jours venir ñu ma carte bu ma envoyé comme message m'en aussi je sais que je suis fautive en quelque sorte mais affaire de famille mel ni tayuma mon comprendre nga ma envoyé Une carte de jot c'est si mu ne ma envoyé le numéro bi moi, envoyé xaalis bi ma envoyé numéro, m'a envoyé le numéro bi ma dem euh,

mu envoyé ma reçu bi le même jour pour wane ne virement bi yegg si na moom defal na ma beneen virement en retour ak li ma jot a am ci sama compte bi foofu bi ma gisee virement bi ma ne ko léegi man de toute façon xaalis bi man soxlaawu ma ko woon li nekk si compte bi dama ko bëgg a dajale ba mu bari nekku ne dama koy jël à chaque fois su samay dara mu ne ma amul problème mais virement bi bi ñu ko defee gis nañ ne xaalis bi mënul dem parce que fi ñu koy envoyé dafa am xaalis donc foofu bu amee xaalis foog nga vidé lépp ma ne ko léegi man mën naa ko vidé ci beneen carte mu ma léegi envoyé ma xaalis bi yëpp su ma ko envoyé man dinaa def le tout ba nga jot ci somme bi yëpp ma ne ko amul problème man aussi euh, je sais pas ce qui m'a pris ma envoyé ko yeneen mille mille cent euros ak déjà li nekkoon sur sama compte bi liñ ma jotoon liggéeyal ñoom mu ngi woon toll ci 300 et quelques ak 180 yi ma jotoon ak 250 yi ma sonn bo bi mu ngi 1500 voire 1600 euros euh, plus de 3 millions si je ne me trompe pas voilà Les nag depuis lors après lors, bi mu jotee lundi ba vendre le 21 là ko envoyé woon xaalis xaalis bi

ma ne ko waaw mais après 30 minutes yooyu ma koy rappeler pour wax ko ne xaalis bi yegg siwul falaa ko gëj a dékkee falaa ko fala ma gëj a tontoo jotatuma dara jotatuma jotatuma ko jotatuma dara mais compte bi maa gis ne ba tey mu ngi am xaalis ñu ñoom chaque jour ñu ngi liggéey ñu may ibbil ay position xam nga ñu ngi jaay ñu ngi jënd xaalis chaque jour mu ngi dugg ci compte bi mais man amatuma consultante quoi amatuma kenn ku ma waxal compte bi maa ngi koy gis maa ngi gis lépp mais amatuma consultante ak reçu yi ma envoyé woon via email reçu yeeg yépp maa ngi toppaat mais n'ai pas eu de retour donc loolu rek laa bëggoon euh, partager pour won leen ne c'est vrai mën nga toog euh, jaaxle liggéeyoo bëgg euh, revenu am am revenu mensuel mais la dugal ci xam aussi dañuy gagner sa confiance facilement dañuy gagner sa confiance xam nga gëmloo la ay affaire bien vrai que crypto-monnaie am na trading online am na am na société yoo xam ne reconnaître na leen mais man j'ai pas pris le temps de vérifier j'ai pas eu cette chance aussi dama la xaalis bu waroon dem la c'était tellement facile nit ko xam ne mu ngi nekk euh, ci beneen côté ligne bi ne la envoyé ma defal lii defal lii nga nekk di def inconsciemment donc loolu laa bëggoon partager que ça soit ñi nekk Sénégal ak ñi nekk extérieur yëpp bu ñu lay bu ñu nangooti ñu ñu ñuy nax ci yenn yi Diagne malheureusement waxtu yu jot na ñu waxtaanee ko. ñu waxtaanee ko moom kay nee na soxlawul ndimbal soxlawul li mu bëgg mooy. ñu yeew sensibiliser. ah kon de. loolu la wax paas boo gisee sax voix bi dañ ko changé. ku muus dañ naan noxoon daaw. mi ngi noonu waaw tubarkaar. jaajëf jaañ booy bi mooy def euh, ki docteur Alioum. waaw.